di leen xamal ni bés bi li ko waral mooy wàll yu mag boobu di Cheikh na Cheikh Abdoul Aziz génn àdduna fi 2006 ñu suul ko Nimzaat chaque année ñu dem di ko ziar ñu ñaan yàlla nag bis bi yàlla nañ ci yàlla defal xéewal ak jàmm ak barke dem ak jàmm ñëw ak jàmm yàlla na yàlla sàmm Sénégal ci yëngu-yëngu yàlla na yàlla sàmm Sénégal ci bala yàlla na yàlla defal peuple Sénégal gouvernement Sénégal suufu Sénégal jàmm ak barke ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak barke borom bis bi di Cheikh Abdou Aziz di ko ñaanal it Mauritanie yàlla na fa yàlla def jàmm ak dal eh, di ñaanal Afrique yëpp di ñaanal nag jamaatu nasri ñaan bu amul àpp di ñaanal waa jàmm gën ak waa Thiès ak waa Sénégal yëpp euh, journaliste nag dama leen gërëmaat di leen santaat seen taxawaay bi nga xam ni 2006 ba léegi ñu koy ànd ak man tàkkul bu ma bu mettee ñu ànd ak man bu neexee ñu ànd ak man bu naqaree ñu ànd ak man di gërëm nag ñi nga xam ne ñooy suma conseillers spéciaux di kii di Oustaz Diaga Fall euh, Oustaz Souleymane Diaw Cheikh Diallo Omar mi Cheikh Khalifa euh, kii Lahat ñi nga xam ne fu ma jóg ñu jóg ànd ak man ak sécurité bi di gërëm it ñi nga xam ne ñoom ñu association poli yi nga xam ne heure moo jigéen jóg ak organisation naar yi nga xam ne heure moo jigéen ñu jóg ñoom ñëpp maa ngi leen gërëm leen sant di gërëm shérif yi nga xam ne nag ñoom du ma leen gërëm parce que ñu moom lépp ma ñoom ñoom seen bopp euh, seen gërëm démb la amaat tey jii maa ngi leen gërëm leen sant comme Cheikh Hadrami wul Cheikh Saad Bo wul Cheikh Daw Cheikh Moussouahidine ànd ak Cheikh Mouhamad Fadel bii nga xam ne mooy suñu doom baay jóge ba géej waaye ànd ak daayiraam ñëpp di gërëm encore ki nga xam ne mooy Cheikh man ay doomu Cheikh Talib Xeer jóge ba Kër Mor Sarr ñëw ak mboolem ñëpp pour ñëw ànd ak ñun wasalaamaaleykum wa rahmatullah message bi ñaan yàlla yàlla na fa yàlla def jàmm ñu déggoo ñoo ñëpp ci jàmm ak salaam sànq déggante na ak euh, yi foofu nee ma ñëw leen amul benn problème mbir mi passé woon Nouakchott ak euh, yenn dëkk yu mel ne comme Nouadhibou bu tuuti mais alhamdulilah yëpp yàlla wis na ci ndox ñaan yàlla ñun ñi xam ne mooy population bi war dem ñoom tam ñu comprendre loolu aw ci yoon yi leen awalee wasalaamaaleykum wa rahmatullah وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين